bismillahi arrahmani arrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi day laaj di wax ne ndax suuf ak i yoo xam ne ki ko moom da koy luye ndax asaka dana ca war tontu li moo ay kër walla ay tabax walla ay suuf walla ay tool xeet yooyu yépp lu ci nit ki di luye bu génne asaka ca jëmmi suuf sa waaye lañ koy fay ca location ba loola bu matee lu asaka war ca lay génne asaka tamat at bu matee lu asaka war tamat at ca lay asaka kon asakay xaalis lay génne waaye du génne asaka ci suuf si wala tabax yi wala kër gi kër yi wassalaamu wa rahmatullahi